ko wax naa ko waxaat ko Sénégal nañu war nañu critiquer mbër yëpp ba mu des Balla Gaye wallaahi ndax Balla defal na Séné làmbu Sénégal lu lu musul am bala li mu def ci làmbu Sénégal benn mbër musu koo def man nag lii may wax ni dëgg la ci man parce que Balla Gaye xam na ma man xam naa ko mhm. li ñu seq xam na ko mhm. jaajëf bala mais Balla Gaye 2005 la dugg ci lam 2012 la nekk roi des arènes mais Balla Gaye bi muy ñëw ci làmb ñi mën ci làmb la Balla tegle leen daan leen. Ah, ay paa fekk. fi benn paa. Balla bi muy bëre si làmb ay moroomam la bëreel ay Mbay Juuf ñooñu boobu ñoo nekk seen digg doole. Mm. mais Balla Gaye ñi mu daan. koli fay Gaye ko njëkk a daan Ousmane Diop xoolal jëli bi ko Balla Gaye daan. mais Balla Gaye ñi mu bëreel ñëpp ay ndaanaan lañu te bala ay technicien la daan def ci làmb loo xamante ne ni benn moroomam def ko mhm. kon Balla nañu bàyyi na mbër sénégalais yi bàyyi di ko critiquer c'est un champion c'est un grand champion li ma wax euh, euh, rëg-rëg laay wax baal Boy Niang Boy Niang am nga combat bu rëy loolu moom du combat barki yonent bi Boy Niang am na komba mm. parce que gisuñu gisaguñu Balla Gaye xamuñu ban forme lay indi te bu Balla Gaye amee waxuma la cent pour cent ci doole. Mm-hmm. bu Balla Gaye amee quatre vingt dix pour cent wala quatre vingt cinq pour cent ci doole combat am ak Boy Niang du yomb day metti kon na Balla Gaye wuti doole nag kon. non Balla Gaye c'est un euh, bu fekkee li mu indi woon ci Gris Bordeaux moom la a indiwaat. waaw man loolu néew la moom lay indi li mu ci digganteem ak Gris Bordeaux moom la indi ci digganteem ak Gris te am na si ndam. parce que loolu yow yaa ko wax ba tey man waxuma ko mais li ma la mën a waxal mooy Balla Gaye Boy Niang combat la bu am solo na Boy Niang préparé wu sérieusement mhm. ci digganteem mag Balla Gaye am doole bi war am fulla bi war am fayda bi war mhm. te li mu def ci digganteem mag Lac de Guiers ak mu bañ koo def ci digganteem ak Balla Gaye mhm. cest dire mu ñëw mu mu ñëw wan sénégalais yi ne man tamit xale laa damay ñëw jël si ñëw yox la jëli ko waaye nag mi ngi jëli gaynde ay waay ay waay Balla Gaye ku ko jëli Balla Gaye te deux tamit ñëw def ful la def fayda indi doole ban ko xamee mhm. bu Balla Gaye indee loolu làmb ju ndax Balla gay am na technique am na doole mën naa bëree mhm. Boy Niang la même chose ñoom ñaa ñëpp bu ñu indee loolu combat bu rëy ngay am euh, combat bu rëy ngay am foofu incha allah euh.